amis Savita Paradis Massaye Balago Faramaren qui est là parmi nous yéen a ngi ànd ak suñu ci TV ci ay chroniqueur Rita comme nu ñu koy defee saa su ne ah tey nag suñu ci TV dafa ànd ak waa environnement bi ñi nga xamante ne ñooy protéger géej gi waaye di protéger dex gi tey ma ànd ak sama monsieur le commandant ak sama euh, kii euh, adjoint bi muy euh, Saliou mu nekk fii dama leen bëggoon laaj rek quelques questions parce que lii bi ñëpp ñoo koy def ndax géej yëpp boo gisee ne que ay mbalit moo ko daal di yàq waaw kay présent communauté de gestion ok moom moo ko yore wàll boobu noonu donc ñoom ñuy protéger géej gi nga xamante ne presque géej yu bëri yàq nañ ko ndax lan mbalit yi ak mbuus yi nga xamante ne moom lañ ciy sotti waaye ñoom ñu daal di nekk ay nit ñoo xamante ne rek dañuy sàmm environnement bi sama monsieur le commandant ba mu bëggoon wax tey ci loolu administration boobu naka ngeen ko ok ba tey ngeen nekk jërëjëf Rita tey boo gisee jujof yi donc comme ni nga ko waxee soo mën dafa doon benn aire marine protégé boo xam ni Sénégal jëpp ñoo ko bokk te ñu gis fi ñi nga xam ni am na loo xam ne day méngoog environnement am loo xam ne du méngoog environnement lépp loo xam ne nag méngoowut ak environnement muy ay mal muy ay salte def naa ni ñu ci suñu mission ñu def ni pour éradiquer ko tey boo gisee ñu mobiliser school bi boo gisee ñu mobiliser population bi muy waa Guéro muy waa Sodo Xasab muy waa Somone comité de gestion bi bokk ci même le maire de la commune de Somone bokk ci xam nañ importance bi nga xam ne Lagune bi moom na am te ceeg Lagune bi mi ngi set bu boobaa da nga gën a am ay tuuti ñëw tuuti ñëw dana gën a am ay nit ñi nga xam ne dana ñëw pour visiter ko donc tey mu doon bis boo xam ne bu am solo la ñu parce que permettre nañu ñu dajale non seulement population yi nga xam ne ñoo wër Lagune bi mais aussi ñu ci liggéey boo xam ne day permettre ñu gën a am loolu am na am na am na solo lool mais su may wax damay wax ci grand salle yi parce que parfois dañuy gis dimanche sorties yi dañuy bëri ñi nga xamante ne ñooy ci yeneen dëkk yi dañuy ñëw parce que léegi presque moo ci gën a am importance parce que dañ ko protéger yow nga nekk xamante ne yi ñëwee yow yaa leen di dalal wax naka ñuy doxalee ak nag yan jafe-jafe ngay parce que parfois dañuy indi seen i ndox ndox yi nekk ay sachet mbuus naka ngay def ba ñoom ñu mën a dajale seen mbalit yooyu noonu yëpp noonu yëpp parce que bu duggee ci suuf da koy génneewaat ndax poil mbuus ku nekk xam na ne mënut a jeex yow loolu naka ngay jànkoonte ak moom. waaw jërëjëf Rita comme ni nga ko waxee en fait ñun suñu devoir mooy dans un premier temps si ñu ngi leen maanaam ñu jóge seen i dëkk ñëw ci dëkk yi Somone. waaw ñëw ci euh, lagune bi comme ni ko conservateur bi waxee. pour dama leen di wax souvent ne bu ñëwee dañu war a am un déclic. déclic mooy déclic mooy boo ñëwee. espace yu bari boo dem. fooy fekk plage du Sénégal da ngay fekk mu tilim ba kenn du sax bu bëgg a toog mais suñu somoon gi bëgguñu véritablement loolu dal ñu moo tax nit ñi bu ñëwee mhm. dañ leen di présenter lagune bi wax luñu suñu taxawaay lan moo ci aussi suñu warugar ne leen tamit yéen aussi bu leen ñëwee fekk gox bi set mhm. da ngeen ñu war a jàppale ci set boobu set bi mooy comme ni nga ko waxee ndoxuur yi plastique yooyu nga xam ne dañ koy naan mhm. bu ñu naanee ba pare dañu war a waaxu ba ci poubelle parce que tegal nañ leen ay poubelle nit yi comme amuñu culture boobu fokk ñu leen koy rappeler mais rappel bi mooy comme je comme ni nga ko waxee seetlu ko dinañ leen ko wax bu ñu ñëwee wax leen aussi ñuy moytu géej bi parce que souvent ñi ci ëpp ñuy ñëw duñu dem di di sangu ci dex bi ci dex bi am na sécurité mais insécurité bi ci côté géej bi la ëppee donc géej bi ak dex bi mhm. ñu am ñaari conditions yoo xam te ni duñu benn te en plus ñuy nekk ci période nawet mhm. ku nekk xam na ne période nawet géej bi dafa war a gaaw a soppeeku donc rawatina aussi ci embouchure bi muy parti bi nga xam ne aussi géej bi ak dax bi foofu la rencontre foofu la ñu daje mhm. ñuy am li ñuy wax sable mouvant olof bi ko wax suuf buy dund donc nit ki boo ñëwee di sangu boo ci degee sa tànk suuf bi dafay commencé di yóbbu sa sa sa tànk soo voilà soo ragalee nag da ngay gaaw a paniqué soo paniqué nag da ngay nager contre le courant booy nager contre le courant da ngay pratiquement succomber pour la nit ñi gaaw la gis sa secourir la te dama leen di wax souvent bu ñu nekkee ci danger yooyu ñu gaaw a yuuxu bu ñu ruus sax parce que li ci ëpp suñu naataangoo ngi fi ñoo xam exactement bu ñu gisee ku nekk en danger daw dem jëli loolu aussi na ba ci période yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ku ci am xamante ne moom naa la ku wax somon da ngay wax set environnement ba pare naataange ak xéewal nee naa la lu ma am ci somon rek somon moo ma ko may su dawee ci oto yi bu ma yéegee ci avion yi waaye bu ma nelawee ci kilim yi somon loolu yëpp moo tax ma bàyyi ndakaaru njaay daal di ñëw somon kon somon dëkk bu bëri jàmm bëri xéewal ñëpp daal di booloo nekk benn moo waral tey suñu yaay yeeg suñu mag yeeg suñu rakk yi ñëpp daal di ñëw rek jàpp ci set setal bi may remercier ñaar ñi nga xamante ne dañ maa fonk respecté ma di leen wax ba ci beneen numéro merci